Bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu bi jot na sunu gan yi di recevoir tey ci plateau bi Abdoulaye Seydi Abdoulaye Seydi l'inspecteur de la jeunesse nekk responsable PASTEF Kolda nekk chargé euh, communication euh, commission bonne gouvernance patriotisme et citoyenneté euh, ñu ngi lay nuyu di wax dina dalal ci plateau bi Abdoulaye Seydi oui salaamaaleykum Mamadou maa ngi lay nuyu aussi nuyu say téléspectateurs mais surtout en tout cas di beral nuyoo population Kolda et nuyu ñëpp. jërëjëf c'est un plaisir pour ñun ñu lay recevoir avant ñuy xuus ci waxtaan bi maa ngi koy wax bi may euh, def présentation bi vous êtes inspecteur de la jeunesse nga nekkoon en fonction à Ziguinchor nekkoon euh, chef service bi foofu du jour au lendemain on vous relève ñu indi la fii ci dakaaru qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé. voilà en tout cas loolu moom état bu métti la en tout cas ci man euh, sama dund parce que aussi bu ma nekkee Ziguinchor en ngi doon def sama liggéey. donc euh, chef de service la parce que man concours laa def donc euh, concours laa def euh, dama jàng ba parce que bu may réussir concours inspecteur de la jeunesse et des sports maa ngi yoon en tout cas sama première année doctorat université Saint-Louis donc foofu laa ko réussiré bu ma ko réussiré ma def formation deux ans mhm. bu ma ko defee ma def ma nekk agent simple au niveau du ministère de la jeunesse ma def foofu deux ans après ñu affecté comme chef de service régional au de Ziguinchor ma def fa deux ans donc non presque mais yàlla xam na ne maa ngi doon def sama liggéey mais bu ñu commencé mooy euh, avant élection législative euh, mooy deux mille vingt deux bi bu ñu commencé en tout cas bu ñu xalaat Ousmane Sonko commencé di ko attaqué foofu laa commencé woon en tout cas sama prise de position di ko défendre à travers les réseaux sociaux même à, euh, à travers même donc les médias. Mm -hmm. donc am na saa ñu xamante ne ay col droit la ñu wala ñu ma xam au niveau national ñu ma doon woo mu ah xam na yow on va te relever des fonctions ma ne ko mais man yàlla ko mus a bañ. Mm-hmm. donc su dee saa damay dem ba perte sama liggéey. donc loolu jaral na ma ko yàlla def sama prise de position surtout jour vendredi boobu bu ñu empêché président Ousmane Sonko mu dem euh, mooy euh, julli ce jour la vendredi boobu laa ko def et pourtant am na même un chef de service euh, départemental bu ma woo mu ne est-ce que tu sais que tu ko y a pas de problème. Mhm. yàlla moo def lundi boobu donc lendi boobu ma lundi mardi. donc ñu relevant de mes fonctions euh, de chef de service régional à Ziguinchor aussi ce qui est bizarre dans tout ça parce que c'était au du ministre Néné Fatoumata Tall parce que nit aussi soo koy relever man d'accord naa nga relevant fekk def ma sama liggéey mm-hmm. mais mënu ma nekk par exemple un mois à l'avant mooy euh, un un mois nga félicité ma devant tous mes collègues au niveau de Dakar moom le directeur de cabinet parce qu'en réalité Néné Fatoumata ma devant ñëpp mu ne ma vraiment yaa ngi def un excellent travail. un mois avant ñu lay jëlee foofu. oui mais yaa ngi koy wax sànq boo defee ko ne defoo sa liggéey sax mën nañu comprendre. mais bu ñu lay relever xëy na am na faute bu ñu la war a reprocher. bu weesu peut-être wàllum politique bi parce que euh, c'est trop léger vraiment. Euh, comme loo xam ne war na justifier. ñu ñu jëlee nit fenn indi ko feneen. non loolu yëpp amul parce que aujourd'hui ma ne la nit mun comprendre nga parce que loolu moo fi amoon au niveau de Ziguinchor gars yi relevé ma loolu ça créé dañ la dañ la rétrogradé en fait ba biñ la fa def voilà indi ma Dakar bu ma indee Dakar euh, euh, indi ma au niveau du service yu national yóbbu ma ci militaire yi c'était pour en tout cas am na saa ñu ne bon dañ laa yóbbu foofu en tout cas pour yar euh, parce que mm. fu ma nekk ay militaire kese ñoo fay nekk mm. donc ma dem ma toog fa ba ma arrivé sax sama bureau def naa 3 mois sama bureau amul woon saa courant hmm? foofu la sama diggante ak yàlla xaw ma est-ce que daa paano mais amul courant 3 mois maa ngi doon salle d'attente ma toog foofu mais woo naa sax ay samay grand ñu may conseil ma ne ah lii moo fi am ñu ne ma noo que man dès la parce que un euh, euh, war a la parce que gâchis lay doon ku mel noonu ñu teg ko noonu rek di ko xool. non lan lañ ma dénk man depuis ma jógee Ziguinchor ba tey ça fait deux ans. musuma jox benn courrier saa nga ne ko bindal. en tant hmm. que un inspecteur surtout littéraire de formation musuma yóbbu eh, eh, jot courrier. musuma ma jox aw ma saa ordinateur bu kii nii aw ma saa hmm. ordinateur à l'heure là man ak man ak chauffeur yi sax ñoom ñooy waxtaan ma bureau bu ma nekk man ak chauffeur yi ñoom ñooy toog chaque jour. mais loolu ma ne ko loolu du problème parce que aujourd'hui projet bi ñu bëri. beaucoup de Sénégalais sont morts à cause de ce préserve là mhm. ñeneen ñi ils sont devenus des kii quoi on appelle ça des mais man sax lan moo ma gën a métti ci affaire bi parce que aujourd'hui dafa mel ni nga jël un footballeur comme Elimane Ndiaye wala Lamine Camara mënul entraîner nga nekk en tout cas sa sa digg jamono quoi nga yor xam-xam nga bëgg en tout cas loolu la c'est du gâchis voilà c'est du gâchis mhm. da ngay toog foofu tous les jours kenn du la jox liggéey loolu moo fi am. mais mais mën naa comprendre que avec le régime précédent mm-hmm. euh, ñoom dans leur tête que dara du changé. Mm-hmm. mais mën naa ne alhamdulilah mm-hmm. les choses ont évolué. ci sens bi nga doon xeexee. donc ça fait maintenant trois mois quatre-vingt-dix jours xëy na c'est pas beaucoup. mais est-ce que l'affaire signalé nga ko. non non parce que loolu bu amee ñëpp yegoon nañ ko. parce que même au niveau des cadres gars yi xam nañ ko au niveau du parti gars yi xam nañ ko mais aussi man su ko di souvent aujourd'hui du question de poste. parce que non pas poste sax mais man gâchis la en fait. foofu lay waxee non c'est vrai gâchis la. voilà gâchis la c'est vrai parce que man aujourd'hui su ma sañoon. même suñ ma yóbboon ça Banda Fassi. Mhm. mais su dee mën naa liggéey sama askan. pour sa njëriñ sa réew c'est ça mhm. parce que man aussi je pense que y a eu qui sont morts. ay mhm. ñoom Lat Dior quand il décédé ñoom Alpha Molo Bal ak ñeneen. bu ñu doon décédé leur combat c'était pour que le Sénégal en tout cas soit un pays grand un pays respecté mais ñun tamit ci mentalité boobu la c'est aussi ça ce qui est man bu ma kii parce que temps yooyu yàggul noonu laa marié. bu ma marié yàggul noonu Ziguinchor bu bu may jógee Ziguinchor ma ñëw Dakar yàgguloon ma marié mais bu ma kiiyee ma def ce qu'on appelle rapprochement de conjoint ma envoyé ko au niveau du ministère de l'éducation nationale mais loolu amul suite. Mhm. pour sa soxna mën la jege non amul amul kii gars yi kii ko euh, comment on appelle ça. rejeté ko gars mhm. amul kii aujourd'hui mhm. yaa ngi Dakar pour un jeune couple. sa jabar mu ngi fële au niveau de Kafountine. te dégg nga saa temps yi saa ñu ngi wax que aujourd'hui y a des gens qui voudraient en tout cas qui ont besoin donc sang de de de de femme sànq rek maa ngi koy wax sama hmm. grand maa ngi koy nuyu au passage Babacar Kewolo mu ne ma am na am na lu xew au niveau de Kafountine c'est-à-dire que y a des gens qui voudraient avoir euh, mooy euh, le sang euh, d'une femme mais je lui dis que mais ah en tout cas pourtant man sama jabar mu ngi foofu hmm. donc xam nga loolu forcément ça crée la psychose c'est-à-dire que régime bi il faut ñu am justice parce que aujourd'hui man c'est pourquoi avec le nouveau régime cest à que lu ñu dundoon régime Macky waruñu ko dund léegi. ça mais avant avant avant sax sax avant sax ñuy bañ a teg nit tort. mais dañoo war a corriger. Mhm. li nga xam ne mooy euh, li fi amoon te te nekk lu lu doy waar. sa cas benn benn la ci. foofu laay waxee pourtant ça pourtant ça ministère de la jeunesse du man kese ah. parce que aujourd'hui on est quatre inspecteurs yi xamante ne dañu daay doole ministère de la jeunesse. tey même actuel ministre de la jeunesse bokkoon na ci ñëwul parce que ministre de la jeunesse bi mooy euh, mooy Hadi euh, madame mhm. ko affecté injustement à texte boobu saa bu jot na média publié woon boobu man maa ko bind parce que man mm. instant boobu j'étais déjà au frigo ma ne ko mm. soo gisee ma lay défendre parce que lii ni parce que injustice la parce que man yàlla moo ma def qu'on qu'on ou pas parce que ministre bi mosuñu gisee mm-hmm. mais ñoo bokk corporation moom moo doon diriger mooy suñu syndicat mais bu affaire bu amee texte boobu man maa ko bind jot na mooy média publié ko parce que moom tamit ne ñoom mm-hmm. te yàlla xam na ni il faisait excellemment le travail. Ah, mu doon lu doy waar on espère vraiment que dinañu euh, rétablir nañu seen ay droits corriger loolu nga xam ne ay euh, du sax njuumte ah injustice la woon boo xam ne am na ñu teg ko seen kaw euh, ci Pastef bi nga bokk yaa ngi bokk ci commission bonne gouvernance patriotisme et citoyenneté ah. commission boobu lan moo ko tax a jóg. voilà euh, commission bonne gouvernance je pense que xam nga Sénégal moom pense que commission bu gën a important man je dis souvent que Sénégal soo gisee ñu sanctionné régime Ablaye Wade régime Macky Sall c' parce que mauvaise gouvernance moo fi amoon quoi mm -hmm. mais aujourd'hui commission bonne gouvernance commission centrale la donc commission centrale la mi xamante ne day veiller ci gouvernance bi parce que ça am na am na bonne gouvernance am na citoyenneté

ñoo euh, bind loo xamante ne la partie finance mais partie bonne gouvernance bi patriotisme ak citoyenneté bi boobu suñu commission bi moo ko bind donc ñun ñoo waxoon dès le départ il faut que le président de la république donc démissionne de son poste de, euh, de son poste donc démissionne na encore deux encore waxoon nañu les ministère de souveraineté mooy soo jëlee justice soo jëlee force armée nga jëf intérieur mhm. ñu jox ko de personnalités neutres mhm. te loolu aussi président Bassirou Diomaye Faye na ko donc euh, ñu xool aussi euh, donc par rapport ak euh, lan encore mooy par rapport à la publication mooy des. Euh, euh, des rapports voilà des rapports. Mm-hmm. loolu yëpp suñu commission bi parce que aussi xam nga population du Sénégal donc euh, le citoyen dafa am droit à l'information. bien sûr donc il fallait que ñu génnee rapport yooyu pour que askan Sénégal gis. Mm-hmm. en tout cas am na ñu yoroon fii nii mooy seen comment on appelle ça mais il fallait que ñoom tamit ñu xam seen xaalis fan lay dem. Mm-hmm. ku def dara aussi mu am. Ah, au-delà d'être une exigence. dafay da ngeen am aussi benn mission. de suivi et de contrôle. de veille même ça d'ailleurs ça pour ma jox la beneen euh, euh, euh, xam est-ce que mën naa ko révélation bien sûr est-ce xam nga même seet bi seet <laughs> seetaal ñun ñoo ko proposé parce que à la veille président Bassirou Diomaye Faye bu mu waree jël mooy Lengueye ñun ñu suñu commission ñun ñoo réunir ñu ne il faut ñu accueillir le nouveau Sénégal léegi quest a fait on s'est dit on la première activité c'est pourquoi journaliste yi dañuy wax deuxième activité c'est vrai président Bassirou Diomaye en tant que président mais def nañu première activité c'était mooy à la veille. Hmm. mooy le premier voilà def nañ ko au niveau de l'hôtel Azalaï foofu lañ ko def donc boobu bu ñu paree mooy euh, euh, euh, docteur Assane Gueye maa ngi koy nuyu au passage moom bu ñu paree ba moom moo dem gis le président Bassirou Diomaye Faye ak le premier Ousmane Sonko wax leen en tout cas lii moom bëgg nañ ko def tous les mois hmm, hmm. premier de chaque mois wala en tout cas chaque samedi de chaque mois ñu def ko aussi président Bassirou Diomaye Faye bi xamante ne quelqu'un qui a de l'écoute xamante ne une personne perméable moom tamit d'accord ne mu ne lii léegi dañ koy instauré. Mhm. donc tous les premiers samedis de chaque mois dañ koy def donc loolu. moo ko tamit voilà foofu la. mais mais mais li ma jaaxal mooy qu'est-ce qui vous empêchez de le faire même dans l'opposition xëy peut-être les moyens n'allaient pas suivre. Mhm. xëy les autorités de l'État du gouvernement daaw ci bokk. Mhm. mais aussi doon nekk un bon exemple wane ne tey jii nii. Euh, du tey du tey ngeen ko tàmbali. non je pense que euh, euh, nga fii les patriotes def nañu fii mooy les vacances agricoles là gis nga ko ay mm-hmm. don de sang gars yi def nañu ko fii voilà c'est ça donc mais bii tamit il fallait que nga nekk au pour nga yéene def yu mel parce xam nañu seet seetal amoon na fi mm-hmm. euh, au régime que euh, maanaam avec le régime de Macky Sall mais koy def soo xoolee bien on on était à quelques jours. boobu dañ ko politiser woon bu baax a baax aussi voilà à mm-hmm. quelques jours des élections locales. Mm-hmm. donc da doon gis par exemple un leader politique de Benno Bokk Yaakaar da doon dem Daara Jolof wala dem Tambacounda wala dem Ziguinchor pour mu ne bon samedi bii damay def nettoyage c'est une manière de se préparer pour euh, mooy élection les eh, élection euh, mooy municipale yi. Mm-hmm. dafa jàll rek ñu arrêté ko. donc ñun c'est loolu dañ koy def suñu diggante ak yàlla parce que ñun dañoo bëgg Sénégal benn jour wax naa ko ma ne gis nga le Sénégal de Diomaye ak Sonko ne doit pas s'inspirer de notre pays mais doit inspirer tout le monde hmm. loolu moo tax ñun ñu ne aujourd'hui dañoo war a liggéey ñu def set setal parce que aujourd'hui gis nga nawet bi ñëw na nawet bi euh, voilà nawet bi ñëw na uh-huh. gis nga paludisme ak leneen mais loolu euh, paludisme les moustiques dañoo bëgg salté mm-hmm. donc il faut vraiment ñu ñu ñu ñu nettoyer le pays aussi ku ne en tout cas xam lii ni c' est pas une question de Bassirou Diomaye Faye. parce que moom kese mais justement parce que moom kese moom mënul def loolu. mais justement parce est ce que les sénégalais n'ont pas en tête que. Hmm. c' une affaire du parti Pastef te bu boobaa rek xëy na euh, quarante six pour cent yi leen voté lul. Hmm. dañuy banque banque loxo. non man je pense que soo demee ba nga nekk président de la tu es le président de ceux qui t'ont élu et le président de ceux qui n'ont pas été élu. Hmm. comprendre parce que ñu aujourd'hui ma jox la aujourd'hui wax naa ko sax ma ne que gis nga une seule abeille ne peut pas faire du miel. c'est vrai gis nga ma jox la exemple c'est pour wan ne que tous les sénégalais donc ku ne warul xeeb en tout ma jox la exemple gis nga je mm-hmm. euh, nga un euh, la guerre de Troie dañu wane ne par exemple pendant la guerre de Troie. que comment on appelle mooy les souris ont participé à la guerre mais comment les souris ont participé à la mm-hmm. amoon. donc ko flèche yooyu xam nga flèche dafa am corde mhm. instant boobu courant amul woon gars yi su ñu doon xeexee par exemple ba crépuscule jot ils déposaient leur armes leurs arcs léegi laa nuit la souris da doon ñëw dagg affaire bi par ses dents. ko voilà yàq ko léegi le <laughs> lendemain on a un soldat de moins. Mm-hmm. c' pour dire que auteur dafa wane ça dafa wane nit loo mënta ndaw ndaw ndaw. loo mënta tuuti mën nga pierre à l' donc mm-hmm. sénégalais aussi il faut ñu jàppale président Bassirou Diomaye parce que li muy def ni c' pas pour lui. Mm-hmm. c' pas une affaire de Pastef. mais à travers votre discours aussi est que le sénégalais. Euh, qui n'a pas voté pour vous dina ci identifié non maanaam

nga baal ma parce que. ñu on amul problème boobu bien sûr c'est c'est ça parce que pré premier Ousmane Sonko moom suy wax il parle dans l'intérêt national. Mhm. comprendre nga. xoolal lu neex voilà ça parce que man aujourd'hui moom mooy moom mooy nekk premier ministre l'action gouvernementale moom moo koy coordonner mais aujourd'hui moom su bindee lettre jox ko gouverneur d'ailleurs ça pour man par rapport ak bi dañoo war davantage mhm. que délégués de quartier voilà, tout le monde, ouais. Mhm. parce que dañoo war dans tous les ce qu'on appelle mooy ay comité de quartier les ASC même d'ailleurs même dans une damaa proposé ma ne ASC yi gis nga aujourd'hui association sportive et culturelle mais ñu ne xam nañu nawetaan yi partie sportive bi rek. mooy dominer c'est vrai moom mais léegi le C la. l'aspect culturel l'aspect hmm. mais comme boobu kii yooyu les C boobu mën nañ ko. intelligemment ñu def ñu def association <laughs> sportive et citoyenneté. Hmm, hmm, après avec même des prix qui récompensent les meilleurs ASC. voilà mais loolu ñu def ko parce que aussi nawetaan baax na lool mais aussi il faut que population yi sentir. parce que nawetaan su amee une équipe qui a gagné parfois du am plus de 500 000 francs. mais léegi Euh, pour ñu pour ñu euh, voilà euh, être utile à la communauté par exemple désherbage def ay don de sang. def ay nettoyage mais loolu aujourd'hui man pour man sax loolu sax moo gën saa trophée. Ah, et pour la journée de samedi dernier. Hmm. def ngeen bilan bi comment ça s'est passé am ngeen satisfaction. voilà ah man je pense que moo ne yow saa gis nga ko. président Bassirou Diomaye Faye bu mu jógee fële euh, mooy. Euh, euh, Nigéria Abuja voilà Nigéria. Mhm. def na benn déclaration avant loolu sax. waaw bind sur sur sa page Facebook pour féliciter les Sénégalais. Mhm. parce que soo gisee presque sénégalais yëpp dañoo engagé wu. je dirais pas tout le monde mais en tout cas majoritairement. non mais très bien. voilà voilà pour un début parce que gis naa sax fii ba joge nga dem Tambacounda nga dem Kolda gis nga sax am na benn image sax bu ma marqué mooy c'est au niveau de Kaolack. Mhm. gis naa benn handicapé bu nekk ci puus-puusam di nettoyer. Mhm. comprendre nga parce que sànq maa ngi doon joxe fii mooy la théorie de la souris. mais loolu wane na déjà même soo nekkee handicapé yow mun nga def lépp. vraiment pour nga mhm. apporter nga dem Kolda. autour du gouverneur ñëpp les jeunes oui, de Kolda même les, les mais, mais, mais tout le monde mais gis nañ parce que gis nga soo nekkee patriote sincèrement da ngaa war a teg nale ay affaire de parti man fii la bokk wala fii loolu baaxul ça mm-hmm. il faut que ñu liggéey Sénégal parce que ce pays là c' est pas les Indiens ou bien les Français ñoom ñoo koy defar mm-hmm. mais doomu Sénégal mooy tabax Sénégal te ah. loolu je pense que président Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye ils ont pour ça parce que le Sénégal veut retrouver donc son identité retrouver boppam surtout indépendant li yàlla di def da ngeen nettoyer xëy dimanche Sénégal gépp taw mm-hmm. euh, coïncidence heureuse mais war na am aussi xëy na lu mu lu mu dindi ci effet yi taw bi waroon waroon am ci ci Sénégal naturellement parce que gis nañ ko Touba par exemple ay citoyens sénégalais jël ay pono ay dara dugal ko ci rigole yi wala ci ay euh, euh, mooy caniveau yi parce que loolu aussi il faut que sénégalais aussi sénégalais bu ne xoolal boppam parce que aussi am na responsabilité individuelle yow mënoo nekk un citoyen sénégalais nga ñëw ngay ngay dugal ay gouvernement boobu def à part des mesures d'accompagnement temporaire mais sur le plan structurel il faut ñu à deux ans trois ans De, de, de, pour définitivement. Ah, mais justement est que vous travaillez aussi sur la sensibilisation par rapport à certaines pratiques comme yi ngay dénoncé nii am na ñoo xam ne xëy na dañoo xamul am na ñoo xam ne dañuy saboté ñoo c'est des criminels am na ñoo xam ne xamuñu ils jettent lu n'importe quoi ci rigole yeeg kan canaux yi nga canal yi plutôt mm. euh, di indi après ay problèmes mais loolu wax naa ko sax ma ne loolu responsabilité individuelle la loolu d'abord c'est dans les familles mm-hmm. dans est que vous vous êtes au niveau de cette TV quest que vous faites par rapport à ça mm-hmm. est que réellement yéen a ngi mais déjà le président de la République. oui en en son message de sensibilisation RTS. loolu c'est maanaam dafa war commencer ci moom ba mu wàcc ñun aussi. ce qu'on avait à mm-hmm. mais yéen tamit foog ngeen xam ne maintenant c'est c'est plus euh, le Pastef qui au pouvoir c'est c'est le président de la République yu mel na ko adressé à tout le monde da ngeen bëri émission mhm. mais est-ce que seen émission yéen a ngi dugal mooy la dimension citoyenne mhm. foofu est-ce que yéen a koy dugal parce que aussi il faut aussi que les médias ñu bañ nekk ci ay affaire de wutum buzz xaw lan mais il faut ngeen du loolu c'est dans les médias c'est dans les médias loolu day am parfois même parfois par rapport aux invités ak leneen mais il faut aussi dans chaque émission ñu xool par exemple aspect civisme aspect citoyenneté dans nos euh, euh, voilà au quotidien loolu en tout cas mu génn vraiment aussi pour ñu sensibiliser parce que tout le monde vous suit les gens vous suivent. Mm -hmm. euh, vous suivent mais il mhm. faut tamit yéen tamit seen côté ngeen jéem a euh, sensibiliser parce que média xam moom média moom sincèrement c'est c'est inestimable et mhm. comment comment est-ce que vous la prochaine étape parce que bii passé bi ci gën a fës mooy Saint-Louis mhm. euh, c'est comme ça chaque mois da ngeen valeur wala en exergue benn benn benn région mhm. euh, même au niveau national loolu loolu laa bëgg bon ma man côté boobu man yoruma calendrier mooy agenda parce qu'on a vu que bii pas moom Saint-Louis moo nekkoon à l'honneur en fait voilà ça mais je ne suis pas naa mu continuer ko c'est possible mu continuer ko parce que lii ni ça parce que au moins ku ne day gis boppam aujourd'hui moom su demee Kolda wala mu dem par exemple Tambacounda mais population yi moom ñëpp xam nañu président Ousmane Sonko fu mu dem c'est c'est toute la population mooy ñëw parce que yàlla may na ko loolu mhm. donc loolu aussi mun na ko utiliser wala ça le premier le président Bassirou Diomaye Faye moom tamit ça mu dem Ziguinchor wala Touba wala que mhm. loolu dafa baax mais il faut que en vraiment accompagner ce gouvernement parce que nit aussi soo ko élire da ko war jàppale il faut mu portage aussi quoi ñëpp jàpp si pour ñu mun réussir mooy ce ah, projet il nous reste cinq minutes pour parler des cent jours du président Bassirou Diomaye Faye mi ngi mel ne démb ah, bi mu xeeta serment léegi mais mine de fait cent jours hmm. euh, est-ce que am na lu ñu ci mën a jàppaloo xam ne def na ko ci lu jëm ci euh, Sénégalais yi concrètement je veux dire hmm. je parle pas des rapports des des, Euh, yéen euh, euh, journalisme <laughs> da ngeen da ngeen da ngeen vous êtes pressé quoi si je peux m'exprimer ainsi parce que aujourd'hui dafa mel xam nga ñu ngi ci contexte baccalauréat mhm. même dissertation suñu la joxee épreuve on te dit quatre heures de temps <laughs> quatre heures c'est ça la réalité mais mënoo di def trente minutes nga rek il faut rendre à mhm. c'est ça la réalité certains certains le réussissent bien non mais trente minutes mënoo rendre mënoo def mais aujourd'hui ce qui est mhm. moom président Bassirou Diomaye Faye na fi ay bu mu defee assis woo na toutes les forces vives de la nation gars yi toog pour xool côté justice bi loolu su jàllee aussi c' est par rapport à la publication wax naa ko sànq parce que le droit à l' information un droit mhm. constitution bi moo ko wax tous les rapports ont été publiés soo jógee foofu aussi nga dem par exemple ci côté euh, moom démissionné na moom démissionné na mooy euh, voilà démissionné na mhm. aussi soo jàllee foofu nga dem euh, donc par rapport au ministère de souveraineté naa ko sànq jox na ko aussi euh, mooy euh, des personnalités neutres nga dem aussi donc par rapport à la justice d'ailleurs ça ma ma wàcc parce que par rapport à la justice sociale mm-hmm. parce que soo xoolee je donne l'exemple du capitaine Touré moom bu mu ñëwee parce que y avait des des des des ASP qui ont été radiés depuis pendant les événements mais dafa ñëw toog rek mu def euh, benn genre genre genre note de service voilà note de service mm-hmm. mu ne en tout cas pour toutes ces personnes la qui ont été injustement pour ñu déposer at leur dossier mm-hmm. donc pour ñu intégrer at comprendre donc loolu déjà loolu acte fort la soo jàllee foofu nga dem ci côté euh, mooy euh, kii bi mooy euh, wàññi dund gi wàññi voilà réduction boobu je que trois ciment bi ceeb bi ak lépp xam naa séeréer de ça dañu ciy kontaan mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu yëpp def na ko nga dem aussi côté agriculture soo à un moment donné prix engrais bi ça a coûté ça a coûté trente cinq mille comme ça mais à l'heure là c'est onze mille comme ça mm-hmm. donc loolu aussi je pense que loolu aussi avancé la parce que en même temps même ministre Mabouba Sarr maa ngi koy féliciter parce que wone na vraiment que moom le Sénégal du question ay baisse prix du riz rek ngay jaay mais aussi il faut que sa agriculture mm-hmm. yow nga jógee comment il faut compter sur toi. Ah, xam nga on dit euh, souvent que euh, le train qui arrive à l'heure euh, n'intéresse personne. parce que dañ leen a fal aussi pour ay résultats. voilà c'est ça très bien war nañu applaudir. mais les Sénégalais s'appesantissent plus. ci mm. li nga xam ne wax nga te def leen ko. Mm. reniement yi par exemple. Mm. ñaar mën nañu ko ci noter. njëkk mooy les les yi ngeen diggee woon appel candidature benn la. moom ngeen njëkk wan wan ginnaaw. ñaareel bi aussi. mi soxal la no euh, euh, balaa saa may egg fi vrai on est à la fin de l'émission mais benn côté bëggoon naa ko jóg c'est par rapport au bilan oui c'est-à-dire côté diplomatie mhm. soo xoolee par exemple le président Bassirou Diomaye Faye dafa décomplexé un peu mooy les relations entre le Sénégal et la France parce que de l'indépendance en maintenant da ngay doon nommer président Sénégal rek taf taf mu dem France mais moom dafa ñëw dem Mauritanie dem euh, euh, guinée dem Gambie dem au niveau de la sous-région parce que comme le disait Bismarck un pays fait son histoire mais suivi sa géographie mhm. donc moom dafa ñëw ce qu'on appelle la diplomatie du bon gouvernement euh, du bon voisinage donc def na ko réussir ko parce que aussi bul fàtte ci wàllu taarix est-ce que est-ce que vous savez pourquoi ñu créer école coloniale bu ñu koy créer la première école sénégalaise en 1817 à Saint-Louis ak mooy l'école mutuelle des première fois bi dafa woon il il fallait ñu am des contremaîtres contremaîtres mooy des petits agents là ñu doon ñoo doon jàppale mooy administration mm. coloniale mais la deuxième la principale chose c'était quoi la seconde c'était mooy euh, parce que le colon savait que dans cent ans cinquante ans la colonisation allait euh, fi cesser mmh. maintenant il fallait à travers l'école euh, française l'école coloniale formater les voilà esprits. formater avoir des hommes quand ces hommes-là euh, partiront mmh. voilà on aura en tout cas des Africains qui feront comme un nègre de service voilà voilà voilà un de service hmm. maintenant par rapport euh, euh, euh, ak kii bi mooy ak le premier Ousmane Sonko yi mooy mooy mooy par rapport ak wala appel à candidature mais loolu d'abord loolu c'est pas encore fini parce que le premier le président Bassirou Diomaye est élu pour cinq ans hmm. parce que aussi pour def appel à candidature pour un pays bi xamante ne tout est urgence mais mënoo ñëw rek parce que appel à candidature voilà ça prend du temps au moins ça prend un an hmm. est-ce que ñun waroon nañu toog fii ñu xaar qui sera nommé DG RTS DG Port non il fallait attendre il fallait s'attendre loolu d'abord ça ça demande du temps hmm. mais par rapport aussi ak euh, mooy euh, président wala la justice mais ce sont des Sénégalais ce sont des Sénégalais même des magistrats la plupart des magistrats ne voudrait pas que le président de la République quitte comment on appelle ça euh, mais loolu xanaa yéen avant ngeen koy ngeen di falu xamu leen ko woon. non l' opposition. non mais mais mais la vidéo d'Ousmane Sonko il est le président n'a rien à faire amul leen lu mu fay def en fait foofu ci constitution de la magistrature. ak son ministre de la justice non mais vous savez am na sànq wax naan xam nga loolu commission bi moo ko proposé. Mhm. donc commission bi xam nga nguur par exemple euh, mun nga am yéene. mais léegi avec la réalité nga gis lenn mais aujourd'hui leer na ma le président Bassirou Diomaye Faye moom kese mhm. soo ko laajee moom il voudrait quitter mais c'est que y a des pressions y a des gens qui ne voudraient pas que président surtout des magistrats mhm. surtout man sax mënoon naa surtout si les magistrats sont d'accord eh, majoritairement si waaw bëgguñu dem donc loolu moo fi am mais qu'est-ce justice est-ce que exécutif dam toujours cette euh, même mise ci ci fonctionnement justice. non je pense que loolu gis nga ko temps yële parce que. Euh, euh, l'appel du ministre à à Ousmane Sonko non c'est pas l'appel à parce que xam naa <laughs> ay kii yooyu mais je pense que le fait que ñu jël par exemple militant de un militant de mhm. ko te loolu xam de à 2019 presque militant de l'APR a été convoqué à la justice. Mhm. te loolu waxee au Grand Théâtre kii woo na ma ministre bi ma ne ko jël ko loolu y'a un aspect pédagogique c'est pour dire que ku nekk ak nga nekk ak Ousmane Sonko nga nekk ak euh, Macky Sall yéen a yem devant la loi il faut que sénégalais comprendre loolu di la sant bu baax a baax c'est un réel plaisir ah waaw bon en tout cas maa ngi lay nuyu aussi euh, di euh, di la féliciter mais surtout encore di fee di di remercier la population de Kolda mais aussi nuyu surtout aussi donc mooy la commission bonne gouvernance aussi comme nous sommes dans un contexte de féliciter aussi tous les candidats en tout cas qui ont réussi. Mhm. donc euh, féliciter aussi ceux qui ont été. Euh, voilà voilà et bonne chance aussi pour les autres candidats. et je vous remercie. jërëjëf di ko sant bu baax Abdoulaye Seydi moo nekkoon inspecteur de la jeunesse mise au frigo ñu fàttali ko pour gars xam ne fi ñu du yoon nekk responsable Pastef Kolda bokk commission bonne gouvernance patriotisme et citoyenneté dig suba à la même heure ak